Zagadat. Same time, body ten ten. <laughs> it's your boy. It's E. Kelly. My baby, they confuse me, yo, with that boy. asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa bitim réew rawatina yéen ñi safoo di bàyyi xel waa El Vision Média tey nag sista Eva ñëwaat di ànd ak yéen seen émission li ma bëgg a doon tey nag boo leen xoolee bu baax di ngeen gis ne ne tey Eva nekkul Dakar a ah, déedéet tey maa ngi fii nga xam ne ne mooy Mboro ci quartier bu ñu naan Poroxaan Kër Maam Jaara kon damay ànd sama gars yi daal di xool fii kenn daal koy tey dékk sama micro laaj ko moom lan la bëgg a doon sama caméraman topp ma ay My baby give me leg over, uh-huh. hangover. Baby she dey give me hangover. Hey, eh. hey, hey. waa daa mel ni gis naa fii ne ay nit yu fa dajaloo de xaama dem xool laaj leen lan leen bëgg a doon as topp leen ma gaaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. am jàmm bu baax. fii mooy Mboro daal. waaw tey nag waa El Vision dañoo ñëwoon doxantu fii nga xam ne ne moo di Mboro. ci quartier. Darou Salaam noonu la. léegi damaa bëggoon a introduire fii kenn daaj laaj moom lan la bëgg a doon dalal ko si sama émission. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax alhamdulilah naka Mboro mu ngi tàng wala. bon tane na quoi tane na <laughs> climat bi day changé quoi. est ce que xam nga ne yaa Wah, sa émission li ma bëgg a doon waaw dafa mel ne wane nga ko de waaw wane <laughs> léegi yow dama la laaj yow lan nga bëgg doon bon bëgg doon euh, bon développeur web laa bëgg doon développeur web quoi laa bëgg doon développeur web Wah, ça Developer aplikasi. application mhm. ak euh, site web site web waaw yow lan moo la pousse ci loolu noonu ba nga bëgg ko doon waaw parce que en ce moment ak évolution monde bi ak électronique ni mi doxé bon on a besoin par exemple de créer genre ay logiciel comme whatsapp facebook genre truc yoy nan quoi moma inspiré mo bal ko don gala yow dooj nga def ah no def yow ku la bàyyi nga na ay da ngay créer ay whatsapp at si facebook at ah. yooyu noonu waaw parfois foog ñu dojal hmm. waaw foog ñu doojal yaa wax li <laughs> ki de ci mboro la bok dengel li mu wax <laughs> nee ay whatsapp yow tay suma la waxoon pour nga créer mo whatsapp affaire yooyu noonu hmm. ba xam instant bi nii nga toll nii yow mën nga ko def yaa ngi ci nekk. boo instant yi nii cest à boo ko bëggee da nga day doon sous forme projet. Mhm. day doon benn projet boo xam day doon benn temps benn durée bu ñu koy pré bu ñu koy programmer quoi da ngay wax ne date limite ko soxla. ñu ñu liggéey loolu noonu. waaw. Mhm. noonu daal lay demee. noonu lay demee quoi ah. amul amul prix dip quoi. ah kon loolu la yéen a ngi dégg de kon ni ñu ko doon waxee rek li ma bëgg a doon dégg ngeen li mu wax neen loolu la bëgg doon xaama daal di xool fii keneen parce que du benn kese fi taxaw damay jël keneen soxna si bul daw kaay <laughs> soxna si di nga mës a wax nag wax moom di nga ko mës a def <laughs> ça va. ça va yaa ngi ci jàmm. la bëggoon a dalal suñu émission li nga bëgg a doon. Mhm. ma bëggoon laa laaj yow lan nga bëgg a doon. lu ma bëgg a doon. man su ma màggee styliste a la ah, nee na doon pourquoi lan moo la poussé yow nga bëgg a doon styliste. parce que moom la opté. Hmm. pour doon ko. waaw gisoo li may defal sama bopp. waaw jëlal leen ma xale bi ci kaw ba ci suuf di sànneekul di wane sa bopp nii sànneekul may xool. wan ma ginnaaw. fii dara fay nga sa ëpp na. yaa ci biir noo fii Mbora neex na man Mbora laay def ñibbiwuma dégg man maa bañ fii laay. yow loo bëgg a doon lu ma bëgg doon. bon dans avenir. Hmm? sama avenir moom bëgg naa doon un grand transporteur. grand transporteur yéen a ko déggandoo sama mbokk yi mhm. pour. le moment ci domaine boobu laa nekk. xam naa métier bi min na ko te euh, peut-être j'ai fait pas mal de temps ci métier bi. Mhm. mais métier bu bu ma neex la en fait. bu la neex la voilà. yow lan mo la pousse ci nga bëgg nek transporteur le transporteur c'est-à-dire que d'abord liggéey mom da ngay am passion bi d'abord bëgg ko. ba mhm. pare miin ko xam voilà ba pare nag di ci sentir sa bopp di ci parce que pour le ci domaine boobu laa nekk ci laay liggéey ci laay yëngu matin midi soir voilà c'est ça que moom te dans l'avenir bëgg naa nekk benn grand transporteur bi nga xamante transporteur yu ñuy Sénégal yëpp ñu di les gros marchés état privé et tout te xam nga ne loolu rêve boo xam ne na day réaliser maa la ko wax man aw oh, man aw oh, Eva dëgër fit man. waxuma sax yow pas Eva mais man personnellement je sais que ne dina réaliser wu. incha allah bu neexee yàlla ñoo ko déggandoo fii ci Mboro laa nekk ba léegi de daal fii taseet koo xam ne nee na moom transporteur la bëgg a nekk. fii ci Mboro ma daal di koy bëgg a dalal sama émission li ma bëgg a doon sëñ bi na nga def. maa am la bëggoon laaj yow lan nga bëgg a doon ndax émission bi loolu émission bi man de ni ma doon parce que dafa nekk benn artiste comédien artiste comédien ci théâtre hmm. maa eh, ngi joué Arcos Géejawaay Géejawaay hmm. ah, yow kon artiste comédien nga hmm. léegi yow ëllëg eh, art bi fan nga ci bëgg a toll art bi mhm. art bi suñu mën a toll bu naa toll bu sori parce que art bi dafa nekk loo xam ne man maa ngi koy dundi mu nekk art boo xam ne bëgg naa ko loolu te yàgg naa si parce que lu ma tax lu ma tax ñoom boora dama am dama am blessé moo tax mu ñoom boole waaye temps yi sama xel mi ngi foofu parce que gars yi maa ngi digal ñoom téléphone chaque jour ñu ne ma parce que doon am festival bu mu bu mu war a sëñ bi ñu lay ñaanal yow sa fi nga bëgg a yegg at ki nga xam ne ne mooy sa idole nga dem ba raw ko dem ba ndax lii mooy suñu émission li ma bëgg doon te defe naa ne li ma bëgg képp koo xam ne ne mu ngi dox ci biir suuf rek mu ngi ñaan yàlla ëllëg mu doon lenn ñu lay ñaanal loolu bu baax waaw itam di la ñaanal seen émission bi nag li nga def euh, mu jëm këram maa ñaan si barke Serigne Saliou Mbacké lépp lu ngeen séntu rek suñu yaakaar yàlla na jëm kanam yàlla na ngeen raw seen maas si barke Serigne Touba man taal ba Serigne Béthio laa mais xam nga Serigne Béthio laa gëm moom maa yaakaar di ñaan Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou ba yaay ku loolu te wér si barke Serigne Touba ñoo ko déggandoo sama mbokk bi wax na li nga xam ne ne moom la bëgg a doon léegi nag damay daal di dem ba beneen yoon fii lañ ñëwoon ci Mboro ànd ak samay caméraman muy Saliou ak Fadel léegi nag damay daal di def coupé ba beneen yoon ci beneen quartier ma daal di def lu ma neex allez That monkey they walking, baboon he just the chop. Me I go chop all the washing.